l'information en moins de trois minutes mercredi premier mai 2024 li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci nag gestion bu Prodac euh, fësal nañ ci pàcc bu yaatu ci rapport cour des comptes mi nga xamante ni publier nañ ko Pape Malick Ndour mi nekkoon coordonnateur am cité nañ ko ca euh, ginnaaw bi euh, nga xamante ni tabb nañ ko ministre de la jeunesse lañ ca wax nag ci biir rapport bi moom moo di Pape Malick doon na recevoir lu toll ci 5 millions de francs CFA durant 3 30 mois mu jëm ci salaire am plus nag indemnité ci même période bu toll ci 15 millions de francs CFA boo xamante ni rapport bi fësal na ko ne daan na ko jot soit euh, kon 500 euh, 000 francs par mois euh, loole nag ginnaaw bu ñu ko fësalee mu jur coow moom Pape li Ndour tontu na ci compte Facebook am nee na amul foo xamante ni rapport bi kon épinglé na ko te mi ngi ciy défier kii compte ndax moom yorin bu jaar yoon la coordonné woon kon Prodac bu ni mel mi ngi nag daal di wax ni nag servir bi mu servir moo waral mi ciy défier koo xamante ni nag yaa ngi njottu ne moom da cee jublu luubal wax nag ci rapport bi ba tey 2021 2018 2021 la ñu ca fësal waral nag gisuñu ci benn yoon fañ ca daal di fësalee gestion bu Mame Mbaye kon rapport bi amul benn yoon bu mu ca rek daal di sëggee c'est la grande surprise ginnaaw visite bi nga xamante ni def nañ ko ci site bi nga xamante ni daanaka bëri na ci ay sénégalais yoo xamante ni dugg nañ ca ginnaaw bu ñu yógee euh, publication bi fàttali ne rapport Prodac boobu nga xamante ni tuddoon nañ ci Mame Mbaye moom waraloon sax nag ñu daal di écarté kii di Ousmane Sonko eh, ci président présidentielle yi ñu daal di wax nag ci leneen mu di visite inopinée bi nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye def na ko tey dem na ca Mbourkat ngir visiter ndax mesures yi nga xamante ni jël nañ ko ngir eh, régler coowal suuf sa ndax ña ngi koy rek daal di eh, topp ñu daal di wax nag ci li nga xamante ni moom moo di décret bi nga xamee ni itam moom président Bassirou Diomaye fay jëloon na ko ngir annuler mbooleem tabbate bi amoon ci wàllu magistrature président Macky Sall daal di koy defoon fësal na kon euh, këyit yi koy euh, euh, yi koy dëggal tax nag ma jàmbal Diagne moom daal di posé wu question lan moo tax ñamu concerné tudd ñu leen ca ndax kii di président Bassirou Diomaye Faye day daw recours ci décret boobu bu annulation bi nga xamante ni def nañ ko président Bassirou Diomaye Faye nommé na Ousseynou Ly ministre conseiller porte-parole ca présidence de la République foofee ca chef cellule digitale kon bu palais bi mu nekk nag figure